Enya xarañ loo. yes sir aka from from Arend. King mais King Baba à Paris. on est là on est là on est là na de. waaw ñu ngi rek mbay mi ngi lëmbe rek. Cheikh mbay toogal wala nga taxaw. mbay coow li bari na le idi. ah. seen néegu maam ndax boo duggee seen néegu eh parce que papa ñoo fay tasee ah <laughs> affaire yooyu day def effet ñaar sama affaire bandi yooyu day def effet xoolal eh nii lañ koy feccee da ngay bàyyi sa ñaari tànk tase nga ko waay nga ko waay mais effet. effet. waaw. léegi. ci kanam incha allah. waa ñu déggoo ci kanam incha allah. waaw mais Kaan effet bara cube bi moom noo ko gisee moom. mais effet du nit. mbara cube la génn de. non du nit. mbara cube daa dégg. waaw mbara cube daal duy caaxaan. caw effet bi mu mu defal ma effet mbara cube. waaw mais loolu yéeme la. non loolu mais tamit doo nit. non du ay fo. du ma voilà voilà effet mbara cube bi.